man soxna Yacine Ndiaye madame Mbacké. Mhm. waaw may conseillère départementale Pastef Mbacké. en plus je suis professeur de lettres et d'histoire géographie au CM mhm. waaw. lan moo waraloon sa tànk ci concert bi nga xamante ni doon na am tey muy concert de casserole. waaw c'est un message que nous avons voulu lancer à Macky pour lui dire que merci jërëjëf bu fekkee doon liggéey wàcc na. ñu ñoo doyal ñoo ko wàcce na dem ndax les sénégalais souffrent ils sont fatigués xam ngeen li doy na waar en tant que président de la république te nga def discours de la nation sa société wan la ginnaaw en saw askan wan la ginnaaw ñu déglu macha allah suñu président Ousmane Sonko bi nga xamante ne nii ah tubaarkàlla macha allah ah lu mu digal ñu def nag luñ ko ñu tere ñu bàyyi ndax dañoo xamante ne nii fi mu ñu jëlee fi mu ñu jëmee ko gën waaw. non non non troisième mandat incha allah ah loolu mooy Sénégal tàkk na ke ko yàlla. maam li leen yitteel maam moom wax ci troisième mandat bi. waaw troisième mandat bi ndax boobu ba léegi nangu ko wax da koy raay raayal il tourne autour du pot. Mm-hmm. ah kii nag dit rien constant la la tubaab wax. Mm-hmm. kon nag ça veut dire il prépare quelque chose. Mm-hmm. mais ñun tamit nous l'attendons de bien ferme. mus ñu ko may dara te duñ ko may dara. ñoo ngi toog di ko xaar troisième mandat moom du fi jibe bu mu ko sax jéem. waaw doxalinu président la république. moo ñu soof métti ñu ndax dañu amoon confiance ci moom Macky Sall mu yiiw di jaay yiiw boog laay wax di jaay yaru Sénégal yi am confiance ci moom dénk ko suñu réew mi mu ëlbati ko wor ña ñu gis nag tubaarkàlla macha allah le jeune président incha allah Ousmane ko ñëw teg tànkam fu baax ndax tamit nag dafa wane lu tax ñu gëm ko ndaxte macha allah doon inspecteur impo et domaine pendant 15 ans mosu fa la jël mosu fa jël xaalis ci jàmbur kon nag. macha allah doon na exemple te Sénégal gis nañ en général inspecteur impôt et domaine yi ay milliardaires la ñu doon kon Ousmane Sonko su fekkoon poche am rek moo ko ñor day continuer nekk ci nguur gi ànd ak ñoom di lekk xaalis Sénégal di nax sénégal yi mais war nañu ni Sénégal moo ko ñor boppam ñoru ko. waaw message bi yaakaar na message bi jàll na macha allah jàll na ndax xam nga lan moo tax jàll na mm-hmm. aujourd'hui les gens ont répondu massivement mm-hmm. soo xoolee jeunes yi dañoo génn te du rond-point bi kese de nañ foo romb macha allah yi génn nañ. Mm-hmm. kon nag loolu wane nañu wax dëgg yàlla ñun Ousmane Sonko lañ àndal doyal nañ ci Macky Sall doyal nañ sëkk ci moom nañu may waaw. waaw le dernier mot cela dire kon askan bi nag lii am na solo tey c'est un message que nous avons déjà lancé bi jàll na léegi li ki des mooy incha allah nañ leen préparer élection 2024 POCUS 2024 parce que c'est bientôt c'est dans quelques mois on dirait. kon nag ñu góor góorgóorlu ci ñi amagul carte d'identité ñu wuti seen carte d'identité jéem a voté massivement ndax bu ñu bëggee jàppale Ousmane Sonko c'est par le vote

yor kon lépp lu ñu mën di woote rek ñun jeunes ñun ñoo war a njëkk a taxaw waaw pour mën a fexe suñu réew jëm ca kanam mhm. waaw tey lancé benn appel bu ndaw mhm. di ko wax suñu moroomu jeunes yi mhm. pour xamal na leen nag ku nangu ñu rey sa gaynde réew sa xaju noonu dana la mata waaw te nag li fi nekk nii ñoo amoon yaakaar ci moom ba teg ko fi waaw kon nag léegi nag ki ñu am yaakaar nii ci moom nii dañu war a pare 2024 incha allahu rabbi pour teg ko fi lancé wat benn appel bu ndaw pour wax bépp jeune mu préparé dem jëli carte d'identité te ku ko amul nga dem wuti carte nga bind nga préparé 2024 incha allah rabi ñu teg fi président Ousmane Sonko ñu am ndam jëm ca kanam incha allah. Sénégal ñëpp mënuñoo génn pour ambiance. waaw ñëpp mënuñoo génn pour ambiance bu doon ambiance la tey dëkk bépp ambiance la. waaw nawet dañoo génn pour wane sunu naqar. boo xam ne ay jeunes dañoo amoon yaakaar ci Sénégal ba te ko fi mu tax sunu yaakaar. kon tey képp ku woote rek pour xeex ku fi nekk rek dañoo pare pour génn parce que xeex ko jaamu yàlla la pour man ci li ma jàpp man sama bopp xeex Macky Sall jaamu yàlla la. waaw maa ngi wax askan wi ñu jàpp taw a bàyyi te bañ a déglu waxu noonu parce que noonu day yàq waaw te ku fi nekk nii yàlla xam na ne. Euh, bépp jeune pour man bu nekk Sénégal am nga yaakaar ci moom di lancer appel maire yi sunu paa yi sunu mbokk yi sunu xarit yi jeune comme man ñun ñëpp ñu préparé te waajal 2024 te xam ne lépp lépp lépp pour man rek 2024 lay leer incha allahu rabi ki fi nekk moom pare na fi moom pare na quoi moo bokkatul moom mën na takk ay bagages am préparé ñun ñu préparé teg suñuy élection fal président Ousmane Sonko Sénégal jëm ci kanam incha allah rabi tey wax gars yi ku amul carte d'identité demal nga lijjanti ju ko nga préparé parce que carte mooy fal waaw manifestation yëpp am na solo lu baax la mais carte mooy fal ñun préparé jëli suñuy carte teg 2024 incha allah rabi ñu dëgg ci biir affaire yi génne ko jox ko incha allah rabi mu am ndam soobee yàlla. Euh,